yoo la min yoo la xam yoo la mën a digaale ja asalaamualeykum. <laughs> waaleykum salaam. rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. maman maa ngi ànd rek tës maman Ndiaye Ndoye. damaa la meen tës. maa ngi lay ziar waay. naka yi tey. sant nañu yàlla naka njaboot. sant yàlla bu ajabaat foofu xëcc maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax hmm? yow kaay bi waaw kay fay fay fay fay fay fay fay am solo da ngaa war a toog ci test bi ne laay test bi la waa Sénégal yëpp ngi lay dégg ñoom Cheikh Sarr ngi lay dégg ñoom Mame Mbaye Ndiaye ngi lay dégg Simeer Diop a ngi lay dégg Mamadou Fofana a ngi lay nuyu. walaay ndeysaan. waaw waaw nuyul nuyul nuyul nuyul Baye Cheikh Diop. nuyul ba nuyul Baye Cheikh doose ko doose ko. jërëjëf jërëjëf <laughs> waaw kay fay à tout à l'heure. Hmm? walaay ndeysaan. jërëjëf jërëjëf ndeysaan. diine yi bàyyi Cheikh. Ah. sama jàmbaat la boo xam ni. ndeysaan. ay nenu cokkeer laa ko commandé. nenu cokkeer. nenu cokkeer nga. naqare jàpp oh, cokkeer di oh. naqare <laughs> le waaw wallaay ndeysaan tubaar fakal waaw. secret la. yii. ku ma koy may de. du ngeen woowaa ci kaw wax leen ni. waaw seet a saa moo fi nekk di wax ngeen li nekk ci nenu nenu cokkeeram. foofu nenu cokkeer cokkeer kay ay fam am ñu ma ko ñu ñu <laughs> cokkal mokka eh. da cokkal. Ah, hmm. nenu kaay. waa kaay boobu moom moom moom. Eh. siw na nag. waa xam nga nenu nenu kaay boo ko nenu cokkeer. Eh. kaay cokkal. <laughs> kay cokkal la kay cokkal la loolu loolu. cokkeer ak kaay boo ko boolee. loolu diine la kay cokkal. waaw kay cok. loolu diine la. lu wax nga lu garaaw. loolu diine la. cokkeer ak la. <laughs> ak kaay. ak kaay waaw mooy kay cokkal. kay cokkal dans benn la de. ñoom kaay bi moo tubaab moo koy wax. waaw wolof bi. muy kaay cokkal kaay cokkal. Hmm. ah man toog kaay boo ko ñu de. si. ku fi cokkal ku ne. kaay mooy cokkeel. benn la de kaay mooy cokkeel. kaay mooy cokkeel de. ah man soo demee ñun bu xaal ñun àll bi la xam bi nga xam day nen di boofu. bii ñu ah. bii ñu mel ni poulet de chair ak poulet yi nii. Hmm. kaay mooy cokkeel. Ah, ay noonu ak kii ah, de chair kaay mooy cokkeel. déedéet kay xanaa. Uh-huh, kaay mooy cokkeer de. ah donc yow man kon kon. ne bi ñu xam di ko wax kaay ni te muy nen neen yu bëri. Uh-huh. ndax xamul boof moom lekk ak lii la xam. ndeysaan loolu kese. wallaay ndeysaan. est-ce que du booboo gën a baax est-ce que xam nga benn maal bu góor. man ah, boo ko booleeg lu yées fukki maal yu jigéen. Uh-huh. ñoom ñëpp lay rey. Hmm? dañuy deedu leen wàcc. donc hmm? kaay kaay la kaay. kaay moom kon alaaj nañ wuti ci minimum minimum fukki jabar la non bu demee ba ñàkk ba wala kaane bu ndóol ba tekkiwul tus. Mhm. dina am fukki jabar. maanaam li kaay rek. très bien. <laughs> dégg nga foofu nee na nañ dem uti ji koo bëgg rey. da xool rek. <laughs> da ngay nekk xool xoolal ni borom sàkkee ak ndawaayam. Eh, eh. mu mu lu borom quarante kilos yu mag. <laughs> suñu borom daa yéeme de day sàkk ay mbiram ba pare def ci ay ay fer ñeent. wallaay kaay kaay kaay matu kaay sax liibar. déedéet. parce que livre bëgg ëpp doole bëgg ëpp doole borom bu soixante-dix tonnes yi. ay soixante-dix tonnes te bu jigéen bu jigéen bi tam bu nen noon lay naan day mboolu mboolu de. da koy tegle comme ay per yu wadd. ah comme kaay kay moom waxumala. kaay kaay kaay kaay doo nga am nen boo xamante ni bii médicalement dañu ko autorisé ñu jaay ko fépp. wallaay pharmacie yeeg pharmacie fépp. nenu kaay. kaay kay day faj asma. waaye de ko mu kaay ba nga dikk. waaw. Ah. ba mu cokkeer la. billaay wallaay. jooy kaay. kaay bi da kaay bi da da <laughs> mujjee si sa gil di kaay li mu def ci réew mi de. kaay li mu def ci réew mi. de. traitement bi ni boo ci jëlee trente nen. trente nen. trente nen rek jël ci trente nen ak kaay lu muy def non traitement bi bi ëpp na trente nen trente nen waaye boo ci mais boo ci comme chaque jour boo xëyee toj benn da nga ah, toj rek teen waaw bu ndaw kiiwul hmm. yow Baye Cheikh yow yow trente nenu kaay koy xeexal moom <laughs> bis bu nekk benn nen ba ma trente jours. non bis bu ne benn dafa tuuti man moom su ma ko namee dëgg dëgg dëgg juróom lay toj daf ko ci kaas yu toll nii. yëngal naan yëngal ko ba mu saf. ba def ci xolam. Ah. waaw ba mu saf boole xolam waaw waa Kër Michael Jackson yi moom duñ leen wax ñu wàññi seen musique waa régie. effet effet immédiat la wala. immédiat. ba mu ba mu ma tënni ko nii. nga yaa ngay wëri kaay de. kaay fu mu nekk nii. kaay gaa yaa ngay téléphoné seen xarit yi ani ko am kaay. tuutu Thiès ziar naa la. maam si di na nga def. Michael Jackson ni ci kaw di yuuxu nii duñ ko wax mu noppi. waaw dëgg yàlla ñu ngi tës waaw waaw ah, ñu ngi tës. maam ñu ko waaye ma ani ko maam. dañuy collé dara. yaa ngi collé dara. ne ko Bamba ak Cheikh Sarr rek Mansour Dione si suuf na waa ñu wax. <laughs> waaw waaw neel Michael na. <laughs> <laughs> nanu may tuuti. di yuuxu noonu naan uy rek ooy. <laughs> xanaa yeggu li tey laa juma. comme <laughs> Michael Jackson. kaw di yuuxu rek man damaa xamul ku xëy Michael Jackson ci kër yi. moo ne dégg la ne de noppi na de. nga woo ki nga woo dong xëy Michael Jackson te pourtant télé bi Michael Jackson daw ci. dégg naa télé bi arabe ci daw. dégg naa seen patron ak mënoon a fecc Michael Jackson. diir gi ah, kon yemuloon si animation bi rek. alaaji de gëstu nga président jaay dédicace. du Assane Boub bi rek. man ma yaakaar Assane Boub ji lay am. wallaahi. Eh? Michael Jackson rek. Michael Jackson ni mu daan def ñu ko daan toppandoo ci réew mi bëriwut. ni mu daan defee daal doxum ginnaaw gi. doxum ginnaaw googu de. koo topp sokk. parce que solu ginnaaw ngay def. ma ne ko ku ko topp sokk. non Michael. Hmm? Michael rek. Michael Michael yaramam benn la woon. daa amul daa amul may nag de. billahi wallahi. ak soppeeku. nee leen gis ku jéem rek kale. wallaahi kàkk mbay la. waaw waaw waaw waaw c'est le roi pop. waaw seetloo ni mbir mu ci nekk. Mm-hmm. suñu borom da cay defal loo xam ni kenn koo xam ni du ko ci def dootu ko ci defal keneen. waaw waaw. bu dee ci pop Michael Jackson kenn du ko dab. dëgg la. bu dee ci wàllu reggae Bob Marley kenn du ko dab. dëgg la ñaata ñaata ña ñaata groupe reggae ñoo génne ci àdduna bi. ak bëri sax. di wër di toj waaye xolal kenn mm. déggatu leen. waaw. mais mais ba tey Bob Marley gis nga Alpha Blondy. mais waa Morgan Heritage. genre gu may terewul. Euh, la la la kii def. Morgan tëjatul. mu nekk ba ci doom ji Ziggy. man de ba ci doom ji Ziggy Marley. Ziggy sax waaye tojul. am na si ku nekkoon Gambie ndeysaan ku daan lay lu neex dem dem am na ku nekkoon Gambie de. Demba Conte Demba Conte non li mu daan way daf ma neex. te nag du sama du sama époque nag de. sama mag yi ñoo ko daan déglu rek. waaw man Demba Conte sama mag yi ñoo ko déglu. <laughs> ma fi ko déglu mais dama dem ba. amoon na itam waaye wi daf maa neex Demba Conte. amoon na itam benn Sénégalais bu tudd Ajowa. Mm. Ajowa ah yaa ngi fàttali bu baax. Ah, bu ma fàttali ko la xewoon charité. Euh, Ahmed Ahmed maa ngi fàttali. doon teg télé variété. ay ñoom Maguette Wade. ay ñoom Dërëj Maxime Dërëj Maxime. Maxime génération bu mujj bi la pratiquement. mi ngi fi mi ngi fi mi ngi waay ba léegi. Ah, mi ngi waay ba léegi am na itam ba léegi. mais nag mais nag mais nag reggae moom ki ci dàq mooy sud africain bi ñu rey. Euh, Lucky Dube. oh Lucky Dube. kooku doy foofu moom yenn saa yi ma jékki-jékki sama xel nekk ci euh, bëggal sama xol rek. rey bu ñaaw lañ moom xa moom moom ma teg ko ci wàllu yokk yokk bu mu sës. rey bu ñaaw lañ ko rey. surtout waaw rey bu bu ñaaw rey ko ci kanamu njabootam. waaye ci kanamu doomam. xoolal loolu xoolal sàcc bëgg sàcc oto moom. wallaahi ndeysaan. ñu ngi koy oh. rey bu métti. Afrique du Sud de loolu insécurité boobu moom xawoon na koo yàq. te ñi ko rey rey nañ ko pare dina taxaw di rëcc ne ñoom dañ ko rey moom la sax. daanaka boo xefee sa oto wax mais xam nga. xam nga Lucky Dube mu quitté Afrique du Sud génn ko. Mhm. dafa génnoon Afrique du Sud lu yàgg. Mhm. bi fa nekkoon dañ ko sañ a xaloon lool. buntu xataal buntu xataal ko daan ko rey. am naa thème ya mu doon def. waaw donc comme moom da doon défendre euh, population mujj gi mu génn euh, Afrique du Sud. Mm-hmm. léegi nag album bu mu mujjoon génne mooy Back to my roots. Mm-hmm. maanaam damay delluwaat fu ma jóge woon. Mm-hmm. bi mu dellu see nag comme amoon ay projet yu bëri ak ay artistes yu bëri ba ci Youssou Ndour mi am naa mono projet. mais après bi mu duggaatee xam nga rek. ndeysaan gaa dañ lay ŋànkal. dañ lay guuxal guux moo xam ne day yàgg dañ lay xaar ne yàgg yàgg di nga dikk. donc noonu tey daal reggae moom lu coow li bari bëri bëri Bob Marley c'est le c'est le c'est le king. the king kay donc bu dee Sénégal nag mbalax mbalax mi ruub la rëy rëy yaatu yaatu. Mm. am na borom ak ku mën a mbalax ak ku mën a xew. Youssou Ndour fi ne. moom mbalax ne lépp toog. te mm-hmm. ne ku da ngay mbalaxaat rek. <laughs> ba boo gisee ku taxaw sur scène di way sax da ngay gis jëm Youssou Ndour <laughs> moom mbalax na lépp ay manière am ak i façon ba pare way na lépp. mi ngi noonu. comme comme na Ndiaga Mbaye wéyee lépp. Ah, mi ngi noonu moom noonu la wéyee lépp. <laughs> Fofana wéy na guddi wéy na bëccëg. non Wally Seck wéy na ñëpp. waaw Youssou Ndour wéy na lépp. Mm-hmm. Sidi Diop wéy na woyu ñëpp. maam mm. <laughs> maam góor jazaaka xuloo naag ñëpp. <laughs> non boobu il faut nga ñëwaat il faut nga ñëwaat ci. yàlla dafa xale bi bindee ci Facebook bi. nga ne Youssou Ndour wéy na lépp. Wally Seck wéy na ñëpp. Wally Seck wéy ñëpp. Youssou Ndour wéy na lépp. Youssou Ndour way lépp Sidi Diop way na way ñëpp <laughs> maam góor gi saaka ak ñëpp ah waaye <laughs> bëgg nag ndeysaan euh. maam góor war <laughs> fa bëgg sama xarit la de ku baax ku baax billaay ku mm. mm-hmm. maam góor xëccoo na ba nekk conseiller de toor waay kan maam góor yow muy jàmbaar. tey lañ leen di installé ñoom it sax Tëngéej. Ah, mhm. ay ajuma ji ah, taamu ajuma ji dis na di tey la waaw ñu leen di tax gars yi taamu di installé gars ajuma dis na di. <laughs> installation yow yow yow maam bay installé ngeen seen. ñu installé nañu ba pare. loo loo fa doon. man pour pour le moment nekkuma ah, oh, Mamba man Mbaye man mi ñuy installé kay. waaw wax dëgg yàlla. waaw bu ko def loolu mu def benn réunion lañ fa def. adjoint yi eh, installé nañu leen ba noppi. yow léegi defaatuguñu beneen conseil. yow léegi lan nga fa yow. nekkuma fa dara dul conseil. anatanda attendant. li si conseil gi dañ la ko fal bi ñu gagné. buñ gagné man maa man man maa ngi woon ci liste mandataire yi donc kii euh, kon plutôt euh, majoritaire bi. donc comme ñoo gagné suñu commune d'office damay dugg. jox nañu suñu convocation ñu dem. yokk nañu conseil municipal nga ni. waaw conseil municipal. tax waa waa kii nu mu tudd. sama xarit yi nu mu ñu ngi tudd. waa waa waa waa. CNRA waa CNRA. ñu ñu ngi may menacer rek. non non non loolu boo xamee dinañ ma yóbbee convocation yéen it. kii nee na bi la woon. maam ma sa naa ko après jeex na. mais mais loolu jeex na léegi mën nga jox mais loolu. jeex na jeex na fi mu toll nii am nga fa salaire nii wala. non conseil amul salaire de am salaire. mooy e yow conseil am yow nag. conseil di benn léegi maire bi kat moo fay am salaire le maire. maire bi defe naa mhm. xaw ma adjoint defe naa xaw maire bi. adjoint daal est-ce que bu amee yi tax koo bari de. adjoint am na de. ay ay carburant bon carburant daal dinañ ko am bon carburant. daal xam naa daal daañu ko am. dëgg la de li ngay gis ni maire yi nii. Ah. Eh, bénévolat la maire ba daal xam naa ne buñ ko bàyyee mu liggéey. Ah. moom la ñuy gis njariñam c'est vrai que c'est toute une équipe. Ah. ndax moom mënula jàllaleel dara. te waxtaanee ñu ko ba mm-hmm, noppi. Mm-hmm. Euh, loolu c'est toute une équipe ku si nekk moo si li xew assemblée rek. salaire daal moo wuute. léegi nag maire bi ci boom des fois mooy cof ci ay yëfam. waaw di leen di di di leen di leen ci yëfam. mais est ne bu ñu organiser conseil municipal dix mille francs la ñuy joxe pass. bu fekkee organisé bu ñu joxee conseil. <laughs> waaw te conseil chaque. indemnité bi quoi. waaw dix mille francs transport. <laughs> peut-être événement am. ay tabaski ay kii. <laughs> ñu jox leen ñu sàkk ci nimbal gi. ñu sàkk si ndimbalu askan wi. sàkkal leen. ne leen dee leen kon mairie daal moom moom mbiru mairie daal yi fi taf yëngal la rek. mbiru daal moom liggéey bi. waaw am na fay liggéey. non am na ñoo xam dañ leen jël am na personnel. conseil xam nga amoo droit personnel bi liggéey administra administration. waaw loolu la oh, oh, oh. ñoom ñu ngi tuddee fonction publique locale. ñoom bokk euh, non non du administration étatique bi hmm. non. maire yi daal mi ngi noonu daal bénévolat la rek. dëgg la si maa ngi lay nuyu bu baax. bénévolat eh, maa ngi nuyu sama jigéen bu baax Anta Babacar Ngom. Anta Babacar Ngom. jabaru mooy doomu Babacar Ngom. sama xarit bu baax boobu. jabaru colonel Diak. Hmm. sama rakk la. Hmm. am na boroom kër. sama xarit la waaw. waaw. ndeysaan sama sama péete la waaw. Anta Babacar Ngom. Anta Babacar Ngom. man de je pense que benn benn lañ lañ mës a dese. suñu xarit naa benn lañ bi boo amagul woon jëkkër sax ginaaram oh, doom yëkk bëgg nag. il faut mu ñëw sponsorisé. Feeling Zik ak ak ak Gilles mm-hmm. Diop nee na at yoo mees. non ñun ñu ngi Jolof salaire am saa tun. en attendant Jolof tam dafa neex soixante ah, ah. fii confrontation bu fam bàyyi ma nekk si sama pinton. <laughs> en attendant. ñun Jolof ci kan lañ nekk. man KFC laa nekk. man maa ngi sama pinton seen problème la. waa léegi de bàyyi leen ku may sponsorisé man. léegi kii mi ngi. non man sama man donc ku ma man man samay nit lañu. ku may ku may ku may ku essentiel de papa ji Babacar Ngom bu baax. samay show heure bu fi ma. <laughs> ñoom it seen i show. mosuma gis seen eh, ñu sant suñu nit rek. sama bàmmeel laa tiim. waaw Cheikh bàyyi ñu ñun tamit ñu wax. Badou Sow yi day ñëw ñu fu ñu ko teg nuyu suñu nit rek. non kii non yow Alaaji waxuma léegi. mu koo fa ne mu <laughs> nga fi jaar romb sama si. waaw Cheikh mosuma ci rek bàyyil kan man kan man yow kii dafa maa yoreel huit du wax. <laughs> <laughs> waaye néewoon naa Cheikh Sarr pànkiwul am na am na leneen am na beneen règlement de compte. dalaa yore lan. Ah, la may yoroon fay ba deux mille des huit mille. booy léegi génn nii. coow li jeex. parce que nee naa. te bugguma kenn fayal. fayal fayal ko moom la ma fay nee naa yi fi am na yi fi am na lu ci nekk. am na lu ci rax ab sa baawoon doom rombaat jox ma mille francs kenn du yow ah yow noppil bul mer kenn du yow. bor bi am na bor bi est-ce que amul dix ans léegi. Abdourahmane Diallo. Eh. Zik FM lan la Ziguinchor. maa ngi lay nuyu. Cheikh Saara may fay ko fii huit mille francs. te yaa koy fay kenn du ma ko bu ma kenn fay. Abdourahmane Diallo. <laughs> Fatou Bintou Ndiaye Cheikh Faye ñu ngi may fay ko fii huit mille francs Fatou Bintou Ndiaye. Fama Ndiaye ma doon si. mais El Hadj maa ngi la doon nettali démb. Ahmed eh. Aïdara ak waayam. Aliou eh, Sall sama xarit. mais yow Amady lu mu am Aliou Sall mën ko. Alioune Alioune Alioune yow waxu bala nga génn Sall. <laughs> mel ni ko yor doomam nga gis nag Sall ngaari toog na ni yax bi <laughs> ni mu toogee rek uuf ko nag. waaye Fallou Ba moom parfum yi ci tilleen ak ba ñu ngi nuyu suñu waa ji Diallo Sanane. <laughs> Diallo waaw ndeysaan. Mamadou Galaye ñu koy suivre émission kër gi lépp. Diallo il est bien. mais Alioune am na da ngay réew. yàlla defal jàmm na ko Alioune da ngeen di nangu lu yàlla dogal. Alioune maay maire accepter la volonté populaire. Ah, Alioune nangu naa jékki-jékki nag waa léegi wax ma li nga bëgg. Ah, Alioune li mu doon waxee naan dina ah, wax ma léegi wax ma léegi lan nga bëgg. bu ne ko damaa bëgg nga génn Sall. dama bëgg ngeen nangu li yàlla dogal mu nekk waa loolu weesu nañ ko <laughs> comme sëriñ bi wax dégg nga waa ji comme sëriñ bi <laughs> mais nag damaa bëgg ngeen génn saal bi waa ji du mooyu ala sonal Alioune Sall daal li ma ko waxoon rek <laughs> Alioune Sall ci njabootam la bokk eh. na uuf njabootam leen uuf ñoom ñëpp yàlla baax na yàlla baax na mook bi tamit non El Hadj Deme bu ma titoyé a mu ne kan bu kan titoyé bu ma titoyé léegi maay borom kër maay maay fii monsieur le préfet. non monsieur le préfet. monsieur le préfet déglu ma. bu mu ko tutoyé nag bu mu ko tutoyé nag. bu mu ko tutoyé nag. monsieur le premier magistrat de la ville. nañu nañu nañu waxtaan rek dinañ jubóo incha allah dina baax dina baax incha allah. non dinañ ñoo bokk ñoo bokk doxal. ñoo bokk seen gox. bu kenn def yu sew daal. ñu bàyyi def def yu sew yi. surtout lu sew baaxul. surtout am na ñoo xam ne mënuñu dëkk yu sew yi. waaw lu sew baaxul boo leen ko defee rek dañuy tàgg. daal di def ko tuuti. yal yàlla def fa sutura def fa tawfeex. lu sew daal baaxul. yal yàlla def fa sutura def fa tawfeex. dañ ko waxtaanee seen biir. man waa waa Bokk Yaakaar. Hmm. Hmm. ñoo war <clears throat> na ne mbir yi ñoom ñoo ko bokk. muy Cheikh Sarr di Racine Talla di Xafo ñoom ñëpp. ñu xam ne na ñoom ak Ameth ñoo bokk géejawaay. waaw te ay magam lañu. ay magam lañu. Mm-hmm. rafet. yàlla moo dogal ñu dem ci compétition. Mm-hmm. yàlla weddi jox Ameth Aidara. dëgg la. Mm-hmm. kon la war. nañu xam ne ne yii mbirum politique yi jaru ko ak lu ñu mënti waxante ci wàllum politique. politique lu ne na nga fi dégg. mais bu weesoo dañuy xam ne ne lëg am solo mooy. ki fi nekk. Mhm. nañ ko may mu wane la mu mhm. mën a. après population yi ñooy jugé. Mhm. def nga la Alioune Sall liggéey na Guédiawaye loolu kenn waxatu ko. parce que boo fa ñëwee gis nga changement ba fa am. waaye yàlla ba mu ko koy jox en 2014 dafa xañ ñeneen. bokk na ci cher Sarr mi mii mii mii nekk tey ñu fal ko. <clears throat> moom moo nekkoon maire. Alioune Sall jëlee ko fa. wallaay ndeysaan moom nag bu El Hadj Ahmed Aïdara ñëwee tamit. ñëw jël ko. tamit la war mooy ñu booloo dem nekk benn. uuf ko mooy dëgg bu fekkee ne politique bi mënuñu ànd. Mhm. mais au moins pour l' de la ville de Guédiawaye ak intérêt askan wi. nañu mhm. joxante loxo jàppalante. ñu waxtaan. Alaaji Malick Gakou alin Sall ak Ahmed Aidara nañu toog ñu waxtaan. Mhm. Benno Bokk Yaakaar bu ñu bëggee ay adjoint nañ ko ko wax lu mu leen ci mën a jox mu jox leen ko bu ko defee ñu am bureau municipal bu baax bu ñu demee conseil municipal ñu mën a liggéey parce que tamit am na loo xam ne image la bu rafetul ci géejawaay ña ngay bloqué ay ay conseil municipal ña ngay bloqué ay élection bureau mhm. municipal mhm. rafetul. dëgg du doon yëpp dëgg la. la nañu rafetal rek. dëgg la ñu rafetal. parce que euh, lu ci mën a nekk ñoo bokk seen géejawaay. waaw vraiment nangu ndogal des fois sax yàlla dala ci dala ci dala ci dala ci yiwal. oui ah waaye ñàkk nangu ndogal suñu borom dala ci mën na cee wuññi lu nekk. Mm-hmm. donc dañ ko rafetal rek wax dëgg yàlla. dañ ko rafetal. wallaahi. lii nag xibaar bu tiis la. en doo xaar nu ndekki ba noppi. bu ñu bu ñu dab léegi nii. ah sama waaj. suñu waaj di suñu mag tamit dëkk géej waaye di Boubacar Diallo di jee si. nañ ñu wax ne ne way juróom bu góor moo wàññeeku. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. donc nag di jee bopp si animateur. animateur oh. bu itale bu itale donc suñu mag di Bass Ndiaye di chef de cabinet Aly Ngouille. ñoom ay dëkkandoo ne ñoo. jàkkaarloo kër Bass Bass Bass Grand Bass ak Bass. mi ngi fi de ak a baax Boubacar ñu ngi lay ah, jaale waaye ñu ngi lay jaale ñu jaale lu bokk mhm. suñu baay boobu yàlla na yàlla xare ko min yaa rabbal alamin ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan may la xolu muñ may la ndëgër ak a bëggoon way juróom bi nag bubsu. Mhm. dëkkul géej waaye mais daanaka du fa jóg seen kër. ndeysaan oh su mu animé ba pare taal na oto ñëw seet sa ay waajuram. ndeysaan ah. ah loolu dafa am solo. du ko fii mu dëkk nii ak géej waaye mën na ne non dama ci perte une de temps. deux ah, heures de temps du ko xam ne nag yooyu rek. du ko rëccu mais chaque jour nu mu def dina ñëw si cité des enseignants génnu dëkk. Mhm. seet si ay waajuram doog a taalaat. Ah, boo xoolee nit boo boo xoolee nit rek. xam ne du ko rëccu xam ne du ko rëccu. te feeñ ci moom du ko rëccu mën naa ko mën naa ko seede lu bon bon bokk naa ak moom benn baat juróom-benn at. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mu xam ni mu fanke ni mu fonke ay way juróom. loolu dafa am solo. ñu ngi koy masaw bu baax a baax. masaw ñàkk na lu fort. dund dund mi ngi dund lu metti waaw ñàkk na lu fort bàyyi. waaw. waaye tamit beneen beneen beneen beneen beneen euh, beneen nan laako ma mën a waxee beneen euh, ndomba tànk teg teguwaat na ci kawam. Mm-hmm. Mm-hmm. way juru góor mm-hmm. boo ko rek suñu borom dolliwaat na yeneen ndomb tànk sa kaw wala ni nag yaay kilifa gi jot na nag nga uuf say rak yu góor ak yu jigéen boo dee ku góor am ay mag yu jigéen sax yaa leen war a uuf yaay kilifa gi donc yàlla na yàlla diisal yan bi waaye tamit mu attan ko foofu pare mu attan ko xam nga gars yi dañ naan yàlla na yan bi mais oyofal yan bi mooy maanaam liggéey ba du bëri. Mhm. mais bu ko diisalee. Mhm. ba pare may la nga attan ko. Mhm. loolu taw tawféex lay doon. donc DJ di suñu frère ñu lay jàlle la ñu bokk. muy sa jur wu góor di suñu way jur ñun ñëpp. di ko jàlle suñu frère tamit Pape Doudou Diallo. Pape Doudou ndeysaan. waaw ñu ngi koy jàlle bu baax a baax a baax Pape Doudou. donc euh, mi ngi noonu toute la famille jàll ñu ngi leen di jàllale ñu bokk. Mhm, mhm. ma saw bu baax a baax a baax nit ku baax la bu bagar nit ku baax la nit ku mën a partager. ku ñàkk ki ñaan mhm. ku ku mën a partager. baax ku mën a soutenir nit nag. nit la rek nit la. jox ñëpp cër. waaw ñëpp la jox cër. nekk nit la macha allah. nekk nit la. amiin amiin amiin. rek ndeysaan Sidiki Souké. Mm, mm. mm. vraiment ñu ngi ñu koy jaaree di masawu. Jibi mm-hmm. <coughs> Gueye Ndiaye chef de cabinet président Ousmane Sonko. Mm-hmm. nee na moo lay fay sa huit mille francs. déedéet. déet flash flash yow jëlal sa xaalis rek. Mansour huit mille francs ñu ko bëggoon fay ci kër gi bëri na. mais man maa ngi leen ci lo poosam lay jógee ñëw ci ma. la ay tamit nag tamit nag. loolu dix ans mu yor ma mille dóor ma mille. dix ans ma ne ko mu des neuf. mille francs. dix ans nga wax Baye Cheikh. dix ans fukki at mu yoreel ma dix mille fay ma deux mille desel ma huit mille. na la fay. non ngay na. na la fay par la force. yow boo ma ko doon dogo dogo de sax garaaw. Mm. boo ma robee dóor ma cinq cent. Mm. mu des ay sept mille cinq cent. waaw. gorom ma dóor ma mille franc mu des ñaata six mille cinq cent. boo ko doon def noonu jaaxlu yàgg. ba léegi mat na. ah tamit. da laa bëgg ta fay. kon léegi dinaa la avance téeméer léegi ay ci dikkal. da laa bëgg ta fay ma yónni ci ndekki yónnee ci ndekki léegi nii. def ndékki. da laa bëgg dafay weer eh, wi daal teel sori. weer wi. allé mu dee incha allah tey la dix huit yaakaar naa su ni may compter fan yii di mosuma ko compter weer. Mbadou mais kii bi dafa gàtt février bi. dafa gàtt waaye la cay tege la. <laughs> Mbadou kaa contact la ak janvier. <laughs> kaa contact la. doy na waar doy de. weer de. boo koy calculer da ngay foog ne du ñu jeex. waaw alaaj Mansour nag gis nga nag alaaj Mansour lii daw ci seen TV nag. waaw yii la gars yi ci yow. alxamis ci guddi gi. Sami kii mooy Sami Youssouf. wallaay alaaj boo boo doon présenté Sami Youssouf looy wax. Euh, euh, te mu ne albarnaami. kunna fi Sénégal. wallaay. وافقنا الآن سيدة مريم بنت كام أما الآن ننتقل مباشرة إلى عالم العربي بهذه القطعة الجميلة التي نوافق بها سامي يوسف يمدح بهذه القطعة الجميلة أمه أمي أمي نبشر بهذه القطعة الجميلة سعسار شمير جوب محمود فوفنا وكل المتابع وكل المستمع حيثما كنتم ترافقونني كما أرافقكم وسنبدأ الخط حتى ساعة حتى الساعة واحدة الليلة إن شاء الله Sanumdi. rek son bi jóg rek son bi jóg. son bi jóg teru teru teru teru alxames ci guddi gi daaw ma ko tardé. nuyu mbo mbootaay gi. soxna Binta Thiam ku ma si neex la moom. ak say ba jaata Diatta. <coughs> waaw Seyba Diatta ku ma daan déglu. Seyba Diatta. Seyba Diatta ah. toog nañ waxtaan. ah non ku ku ma neexoon ndeysaan ndeysaan alaaji non non li ma commencé li ma ah, guddi googu. Ah, sama jabar ji ne fii moo a liggéey. te ay baadu ba du ma ko nëbb. madame Diop bi ne fii moo ma liggéey. noo déedéet mu ne doo doo ko defati. waaye billahi su ma duggaatee ci ci ci ci. yow ku ngeen xam mu aysa ku ngeen xam mu aysa non kii kii ki kii ay ndeyam dañu di pël il faut ma def moom muy pël. déedéet taxaw la sëriñ boo ci dem pour mu dimbali moom danaan la problème boobu laa. nekk mu nenu kaay. yee. maa ngi leen kaay moo ko bokk alaaji dama daan dama la daan déglu ba Kébé wallaahi non dama naan départ fii di dem Kër Momar Sarr alxames ci guddi noonu. waaw di rajo bi ba Kébé ah! émission bi yàlla xam na ko. non ah, man de daal du ma ko raté dëgg. il faut ñu il faut ñu dellu soit ko. du ma ko laaj. léegi léegi nañu wax heure exactement boo xamante ni bii. Mhm. ci la ñuy def mën a def force. Eh, mais président Bougane tamit démb def na lu am solo. waaw waaw waaw waaw def na démb solo def na dem démb lu am solo nit nit nit njabootam. Mhm. mooy yoon sax nit boo yoree sa njaboot. Mhm. calam nekk bu la ci kenn jiitu. bu la ci woo. bi mu yëgee coow la taal otoom. Eh, <clears throat> eh, dem fekk ji euh, El Hadj Ahmed Aidara ca mairie bu Guédiawaye. renfort. waaye Simir Diop mi liggéey ci liggéey bu am solo bu ama ama am solo. Mhm. kilifa yu bëri Simir moo leen woo. Mhm. macha allah mhm. kilifa yu bëree bëri bëri kilifa yu bëri. ndaxte li ma nekk foofu yëpp mi moo jël téléphone am. woo leen jóg leen ci jóg leen ci jóg leen ci. jóg leen ci Baara Mbacke Baara Dolli. Baara Dolli ak mère Diarra maam Diarra Fam ak ñëpp. Mm-hmm. suweer liggéey na ci liggéey bu am solo. Mm-hmm. macha allah nit boo xasee ba xam ba ñu xamee la moom. Mm-hmm. lu mu nekk rek dang nga cay nekk. wallaahi donc Chimère Diop moom mention spéciale. ci démb. liggéey na liggéey bu am solo ci loolu waaye président Bougane nit def na waree fam. def na waree fam sa njaboot bu nekkee ci lëj-lëj. te nga am ah war caa war caa defu lëf. jógal donc bi ngi noonu. bu def bu ñu def bu ñu def lu salte. non non na rafet billaahi na rafet. foofa na dafa wax lépp. Hmm. koo xam ni bi ngay politique mu ngi nekk ci leneen. Hmm. yàlla di dogal ba mu fekk leen fa jël ko. Hmm. loolu dañ ko war a félicité te mu dëggu ci seen xam ba pare dooleel ko jàppale ko. dooleel ko jàppale ko. nañ ko dooleel jàppale. su defee di defar géejawaay. wallaahi mooy dëgg. ñu ñu ñu ñu ñu watta tàqali ko dañoo war a ànd. ànd rek. Georges <clears throat> Dacosta mi Georges Dacosta gars yi ñu ñëw doo rétroviseur am xaw kii nii ñu daal di sàcc bagage am. portefeuille am. mooy seex comme nañ la defoon nag. nuyu la ko te ci rajo bi neex na de. waaw yóbbaale te <laughs> daal yëf yi sama waay nga xamante ni bii. loolu day ay document yëf ci ne ne waaye yooyu ko mais grand li neex na. barke rent bi yaa ngi toj yaa ngi. ma def ak jàllale waa jaa ngi toj sama ginnaaw. <laughs> ndeke waa jaa ngi may toj ci ginnaaw. non li ngi yaa ngi grand yaa ngi toj xoolal. tuma ko defati. ñun yow lañu gëm. Hmm? lekkee ku fële sama rétroviseur dootoo ko defati. fii yaa fi ne. fekk ma def sama sorte bu gat sànne ko jàllaa bi toog fàng hmm. ndekete waa ji lim naan ma ñun yow la ñuy déglu am na keneen ku may déglu ci ginnaaw <laughs> dañ lay wom mi eh, ndumbee kuus nga doonu dof la mun naa la yow madame ñi a ah pexe mi sàcc am bu ko defoon ci beneen benn benn projet billaahi balaa déwén ma la morom billaahi billaahi billaahi pexe mi nga am ba nit ki dem liggéey liggéey mbiram hmm. ba jënd ko ci doolem a ñaqam toog hmm. nga ñëw def na sa pexe ba sàcc ko am na yaakaar pexe boobu boo ko nasoon ci benn projet balaa déwén kenn du kenn. kenn du la ëppale. ki nga sàcc sax yaa ko ëppale. mais sama waay. yi fi yaa fus la. moo tax ku leen yërëm dañ laa sàcc. man de fu ma dégg sàcc ngi nii bu ma amee jot dama cay barkeelu. parce maa ngi waay am. mais ñëw barkeelu de maa la wax lii. sàcc kooku koy ci dara noo def ma barkeelu. tëj ci ba mu bu dee ab kaata sax di ko di nga ko ñam ci man. mbaa mbaa mbaa matt. mbaa jëlub kuddul kuddul loos. gis naa fi ñaari njóobeen yu doon xeexee kuddul loos de. ay njóobeen. Aliou Diop ak Siber Diop. ah bon. kuddul kuddul waaw. ak Aliou Diop. bi nekkee fële building boy ga Aliou Diop benn. bu bu jooni jooni. gars yi kudulus gars bu ñu jógee pour xeex lu jot dara ko def. non rajo bi nag yàgg naa am ay yàgg naa am ay xeex de. waaw ah? eh. a ubbi. Eh. Hmm. nga boo dajalee ay kuy. am nañu ñu nañu xeexoon fële. Euh, Sacré Cœur. Hmm. Hmm. xeex yu neex. kan ak kan la woon. ay la de Pabes. <laughs> après maag su ñu doon bëgg a xeex. mbaa nangu su ñu wàcc suuf di di di entraîné di ma xaar. man ko bàyyi ba xeex yi waa ji da ngay entraîné. waaw ah. maag doon nañu bëgg a xeex benn jour. Bougane ak Chimère doon nañu bëgg a xeex Saint-Louis. <laughs> mais nettali man dëgg dong laa wax bëggoon a xeex ma nettali ko maag doon nañu bëgg a xeex jotuñoo xeex Pape Bes xeex naag Younis maag Ahmed doon nañu bëgg a xeex man ko wàccal suuf après. Soumaire ok Soumaire Ahmed danañ bëgg a xeex c'est que Soumaire moom bëgg naa xeex ak ñëpp bëgg naa xeex ak man bëgg naa xeex ak Bougane Saint-Louis dem ba ndax di fa xeex ak Bougane loolu mooy ay sa bopp soo dem fekk seen dëkk di xeex ak mbaa dëgg <laughs> kon boo waxee ne Youssou Youssou woy na lépp waale woy ñëpp <laughs> Sidi Diop woy woy ñëpp maa ngi xuloog ñëpp si xeex ak ñëpp <laughs> yow nag am nga problème dem ba dëkk jàmbur di yóbbante gàmm. fekk ba tegal la ci xol waaw ma tegal la ci SML tongoog ñëpp. borom message. SML. message bi na la jo di laaj kii la Paa la wàcc na. jo est-ce que tout va bien. il est salaire. il est salaire. kër gi bëri ay façon. Chimette ba dafa dem ba Ndar xoolal. Mm-hmm. ni bugaan boo ma boo génnee ma suuj la. xeex bu yàgg nga suuj. <laughs> mbaw mbaw yi. mbaw yi la. mbaw yi moo yàq sama journal tey. El Hadj am pàcc mu ne mbaw mbaw. waaw bàyyi ah, loolu fi xew yéen man fi mi kon man man. yëgu ko loolu ndiki teel a tëdd baaxut. mbaw sa kaw la loolu. déedéet wax dëgg yàlla. maa ngi lay nettali histoire bi. xam nga bi ñuy génnee. booy booy booy viens je t'explique viens je que wala nag de dem nga si ci campagne bi waaw xam nga dafa am benn benn benn son bu ñu génnee. waaw parti sax doon na ko def ci ci ci ci son mi quoi. Mm. bu ñu am nañu nit ñi ci télé gars yi mbaw mbaw mbaw. mbaw mbaw mbaw après musique bi ñëw gën dën gën dën affaire yooyu quoi di ko campagne. waaw koñ bee. Mm-hmm. waaw léegi nag léegi nag seen seen patron bi directeur général bu borom lamp yi. Sénélec kii taal lamp yi. Sénégal nu mu tudd. Pape Demba Biteye ah, moom kii la woon candidat la woon ci mm-hmm. kii. département. léegi nag sëriñ boobu nag. ci gars mi am na ñoo xam ne oto boobu la ñëw di ko campagne mbaw mbaw mbaw. mbaw mbaw mbaw. léegi booy wuy ma. oto bay def mbaw bi ah. léegi a mu ni mu ni mu ni dañoo indi woon ci ka ci ci bisu vote bi ay ay ay ay ay ay pitbull ak xaj. loolu <laughs> léegi nag du ci vote day def recours. ndax xaj yee tax ne ay. bi ko DG bul recours ñu dawee fu ne. gars yi doon dem moom moom loolu ay baaful la. <laughs> wala dëgg yàlla xam na ko ay baaful la. wala dëgg nag. léegi nag man. non c'est que nag c'est que nag c'est que nag man man rus naa waa kii quoi waa. avec daa war a loyal nag. waa Sénégal gi quoi mais na na loyal gay. mais daa war a mais nag ñoom ñoo war a loyal lu ñu dee xaj nag ñoom it du xaj. <laughs> son la. soo bi dee daa xamewul son bi. soo bee xaj yi <laughs> wow wow wow wow. ñu jumtu kër ñu dóor seen bopp ay xeer ne balu fetal la noonu la mën a amee ñu ne ay xaj weddiwu ma ne andi naa fi xaj. waaye xaj yi sama kër lañ doon garder. ndax bëgguma confrontation. waaw ay xaj la yóbbu këram. waaye leneen waaw moo tax nag tamit na déglu. ah koo moo tax tamit. <laughs> léegi la nekk ci mbedd ma di moomu <laughs> mooy. sawar la campagne bi lu nekk xew na fii. <laughs> do campagne bi nekkoon na waruloon jeex nag. mbow mbow mbow. xam campagne bi yi yees yi ci dugg la. bi tey fay lamp yi. waaw ah, la ko wax xoolal bi xaju ne mbow mbow mbow mu ni daw leen waa Kaolack fay wonte seen lépp fay leen lamp yi bala ñoo xaj yee gis gars fay lamp yi bi gars yi fayee lamp yi nag entre temps ni di sëriñ bëgg moom dem vote ji gars yi gañ muy dee ni mu ni ni ngeen gañee du yoon dañoo dawoon fay lamp <laughs> élection yi def recours yàlla na ci jàmm juwaay nañ koy def ay kaf ak i foo kiree ba jàmmam ci. de ndeysaan nañ ciy def ay kaf ak i foo kiree ba jàmmam ci. at amul eh, solo. lépp maa ngi lay nuyu te ñu bokk yi gox waruñu sax waruñu sax di ñu sax ñu waxante lu ñaaw. ndax seen doom yi ñooy ànd. seen doom yi ñooy ànd. di ko seen doom ñooy ànd. des bi tey lu mu wax. ah moom sax. des lu wax tey. tey. Mbow mbow mbow. mbow mbow mbow. mooy Alpha Blondy bi le chien aboie. non non non mbow mbow. dëgg dëgg dëgg dëgg nag recours recours bi tey bi nag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. mbow mbow mbow. du la xel mën a nangu. Pape Demba bi tey ah. samay gaay bu tijjuwuñu ndax dañoo gis mbow mbow mbow. mais waaj boo gisee maanaam day sell sellu ni daal di yiw lu boo gisee tey ni maanaam nit ku sell nit ku yolo fekk kooku maanaam nitu saytaan la saytaan la lu tax nga wax nit saytaan ko xamal non parce que li tax ma wax loolu hmm. soo gisee ni day nuru maanaam fu set fekk maanaam ci biir dafa lëndëm moo tax boo ñëwee këram fekk teg nii tegale affaire boo gisee boo ñëwee da nga yaakaar ni ku sell la hmm. fekk na boo dugge ba boo demee ba ci biir rek nga xam ne kii maanaam nit nit nit nit ku kii la nitu saytaane la daal. yéeg yow bi ngeen gisantee lan la la wax ak yow loo ko yéen ñaan lu ngeen wax ba ba dem ca kër ga ba nga xam ne moom nitu saytaane la. mais parce que dañoo dama julli ji benn ajuma après ñu dajee si laa gisee noonu gis ko mu sol yére ajuma yiw noonu daal si la ñuy waxtaanee affaire yooyu. lu ngeen doon waxtaan. am dañ doon waxtaan noonu waxtaan ci sëriñ affaire ma ne ko yow nit ku baax nga di ni ma la gisee nii. Hmm. waaw mu ne nit ku baax nga de man ko waaw. yow de seen euh, connaissance tàmbalee foofu waaw suñ connaissance ba mu ne ma yow waa ji nga man ko ah, waaw yaa gën a baax de après xam nga si la ma waxee ne na ma après sama kër da da ngay ñëw sama kër seet si ma man ko waa xam naa fan yii naa fa ñëw incha allah xam nga. seet si lan moo ko waral. ba mel ne la bëggoon ñaanal wala lan moo ko. non non ñaanalu de ndax comme waxtaanuñu si wàllu ñaan sax. Mm. affaire yi waxtaanuñu si quoi mm. après. fekk moom comme gis na ma nii rek marché la affaire yu di kii fekk moom am na lu muy pro programme si man daal man bàyyiwuma ci xel daal xam li ma la fekk moom instant eh, yi boobu xalaatoo dara am na lu programme ci yow. non xalaatuma la sama xel sax demul màccul foofu ndax parce que man li li dal li daloon sama xel la moo di lañ doon waxtaanee ma bàyyiwuma xel ni kii instant yi mi ngi mi ngi may programme pour pour pour kii pour pour jox ma benn benn action daal mais sama xel demutoon foofu man si waxtaan woo si la baase woon nit ku sell affaire yooyu xam nga. mais daal waxul affaire ñaan quoi. non affaire ne war ngaa ñëw sama kër. waaw yow nga ne loo ko foofu yow. bi mu ne war ngaa ñëw sama kër waaye ma ne ko waa xam naa fan yii naa fa ñëw après si laa demee këram ma dee rek demee këram après. la di tegtal fan ak fan nga jaar. dafa wala dafa la jox numéro wala fu ngeen jaar. non dafa ma dafa ma tegtal këram. Mhm. dafa ma tegtal këram. waaw léegi. après daan daan may woo téléphone fekk moom mu ñëwee sama numéro jëloon na sama numéro jël naa numéro. Mhm. après mu ma woo ko mu tegtal ma ma dem ba këram. Mhm. ak après si la ñu toog di waxtaan ni affaire yooyu. lu ngeen doon waxtaanee bi nga ñëwee lu mu la wax. bi ñëwee nii dañoo toog nii après. mu daal di génne daal di génne ndox mu sedd daal di xel quoi mhm. fekk ndox mu sedd mi am na benn action bu mu si def daal waaw bàyyiwuma ci xel daal man mhm. man comme nii rek bàyyiwuma ci xam comme ni ngay demee si kër nii rek nekk gan waaw teraange ñu xel li ndox xam nga doo ci bàyyi xel aussi mhm. da nga ne yow ndox lañ xel nii rek jox la affaire yi après si laa ko naane quoi ma ko naane noonu après si la lañ waxtaan affaire yi xam nga après si la si la ba ma ne ko si. léegi yow bi nga ko naanee da nga am loo yëg sa yaram. waaw bi ma ko naanee am eh, am na lu ma xaw a sentir daal. sama sentir sama biir xaw a mel luy métti ak yooyu. waaw mhm. ah, mhm. après si la nekk foofu di ko dara daal après lan la la wax ci ndox mi naan lu dafa la wax leneen wala wax la dara. ndox mi waxuma ci xel ndox mi rek jox la. dafa xel ndox mi rek jox bi nga pare sa biir bi commencé métti. waaw léegi loo ko wax yow. mais après man waxuma ko dara booba mais dama jàpp ni rek maam boobu maanaam comme métti métti kii nii rek métti du biir la nii rek après si la laa waxtaanee ñu toog parce que def naa fa une heure de temps et quelque daal après si laa génne ne ko maa ngi dem après mu gungeem ma ñëw daal di jël taxi si kaw télé bi daal di ñibbi après bi ma accès toog ay fan yooyu laa commencé yëg centre ay jafe-jafe sama yaram daal. jafe-jafe yooyu maam sama aussi maanaam ba noppi maanaam lim la jox day dem ba nga xamante si instant yow comme maanaam xeetu jaamu yàlla yi nga daan def di sell la yooyu mhm. day mel duutoo ko duutoo ko man daal mhm. boo ko bëggee def day mel la lay tënk daal la lay téye mhm. waaw sa xel duutu nekk si maam dana nekk si jaamu yàlla si nga bëgg koo def mais aussi maam day damma day dammat sa say say jaamu yàlla daal yi nga doon def da koy wàññi maam da koy da koy spécial ba nga xam ni na nga doon jaamu yàlla dutoo ko man daal. léegi yow bi mu la joxee affaire daf la woowaat wala lu la waxaat ci diggante bi la ko joxee ba nga ñibbi sa ah bi ma ko joxee ndax woo nga ko. non après bi bi bi ma agsee woo na ma ne ma agsi nga ma ko waa agsi na. bi ma jógee këram ma ñëw woo na ma ne ma déggante. ci ginnaaw numéro am sax man jotoon ko enregistré après numéro si la ma réeré quoi. mais mujj gi bi bi ma loolu ma am jafe-jafe tawat sama yaram daal. Mhm. si laa nekkoon doon fajoo affaire yooyu. Mhm. yan façon tawat la ndax wax nga sàng ni sa biir moo doon métti mais dafa am yeneen gàllankoor yu newaat sa yaram ak ay tawat. waaw mooy tawat yi nekk sama. yaram daal bi la joxee ndox mi daal yow ci nga mujj a sentir ànd nga ak sa wér-gu-yaram. waaw ñàkk ñàkk wér yaram mooy da ngay dem ba isaan dangay da ngay da ngay tëju. Mhm. tëju si biir. xam si wàllu comme sa biir tëju tëju. Mm. pour mu nga dem toilette affaire yooyu. Mm. da lay da tëj ba mënatoo dem. waaw waaw da dem toilette. ndox daa nga ko mën a ah? da nga mën a tuur ndox mais. waaw bon pour toilette doo fa mën a dem. Mm. da lay tënk ba doo mën a dem toilette ak yooyu. affaire yooyu fekk biir bi di métti fan yooyu. maanaam jàpp jàpp sa tànk yeeg yooyu ak nga xam ne xeeti jaamu yàlla daal maam li ma ci gën a kii daal mooy xeeti jaamu yàlla moom yaa ngi doon def nu chaque boo jubee ba ba pour jóg sa ko nii rek day mel da lay tënk waaw sa xel day nekk di xalaat yeneen xalaati saytaane yu bon daal mm-hmm. waaw affaire yooyu daal léegi bi nga demee ba dem ci néeg bi ba gis ko moom lan nga gis ci néeg bi néegam mm-hmm. mais daal boo gisee si biir daal nga yaakaar ni. dafa am daal mel ni lu mu làqatoo quoi. waaw am lu mu làqatoo daal mais nit nit nit ku sel daal mm-hmm. moom saytaane lay jaamu daal aussi fan yii la si ginnaaw euh, bi loolu jàllee man demaatoon naa fa bi ma fayoo ba xaw dem naa fa di ko attaqué quoi. ah. après dama ñëw këram noonu. fekk moom fa mu jëkkoon dëkk après dafa dafa déplacé daal di tuxu laa koy toppee di topp foofu ay mbokkam di leen laaj ba wax ma euh, famille ma dem ci famille ñu may tegtal kër ga ni ma ko tegtal ba ba yóbbu ma fa mu tuxu léegi. si laa demee ba këram keroog ma ñëwee ba toog moom jour premier jour bi ma toogee moom keroog sax la mu ne nan nga def ba ñëw fi ndax affaire dama wax ndax dama koo jaaxal. Hmm. mu ne ma nan nga def ba hmm. ma ne ko man loolu ma ne ko man loolu intéressant ma ne ko yow nitu caaxaan nit ku bon nga. Hmm. nitu saytaane nga. yow saytaane ngay jaam affaire yooyu. ma ne ko yow tooñ nga ma ba fi yàlla mais yow instant yi bu dagan rey nit bu daganoon yow dama lay rey instant yi dama lay ray waaw te xam naa ne moom yëngul foofu ndax xam naa am na ñeneen ñu koy def. aussi keroog am na fu ma dem côté yooyu jaar fa gis naa benn waay bu yiw boo xamante ne. maam maa ngi doon waxtaan ak moom mais kooku muyu ma pour aussi pour ma waxtaan ak moom ndax kooku. léegi yow bi nga ko yuuxoo fa wax ak moom la moom la la wax. bi mu waxtaanee ma instant yow ndox moo la joxoon lan moo si nekk affaire yi ma ne ko ndox nga ci dara a parce que bi ma ko naanee laa santi sama biir laa commencé ay jafe-jafe ak yooyu affaire noo mën a gis nit rek aussi nga gis ko noonu rek tëb tëb dugg ci moom noonu ko non parce que xam nga xaar yi maanaam nit chaque jour maanaam nit nit nit maam dafa lëndëm nit dalay nax. ndax parce que man damaa ne woon ba tënku tënku gi ma tënku woon mooy sant yi nii su ma su ma su ma ñëwoon sa kër ñuy soog a xamante ni si sax boo ma joxee lekk ay naan affaire du ma ko naan. Mm-hmm. boo ma joxee lekk yooyu du ma ko lekk mm-hmm. ay sarax yi sax moo fa demee du ma fa lekk affaire yi xam nga mm-hmm. mais affaire bi kon dafa man daf dafa ma jógee kaw man affaire bi fi ma jaar sax man dafa ma jógee kaw. lan lan la joxaat loolu rek mais loolu rek laa fa laa sa xel xanaa day sentir lu bon ak yooyu wala da nga xel da nga nekkatul ak sa xel wala. mais maa ngi sama xel quoi mais sant comme xeeti jaamu yàlla da ngay xalaat xalaati saytaan mm-hmm. xalaat yu bon affaire yooyu aussi xam nga di xalaat xalaat yoo xam ne naam baax wax nga ko bi nga fa demee ah wax naa ko quoi waaw wax naa ko mm-hmm. est-ce que nekkul noonu ba yàgg mu ne kaay ma ñaan la yéen nga d'accord ci loolu dem ba ci biir man waxuma ko waxtaanu affaire yi ñaan ak yooyu mm-hmm. affaire yi ñaan ak yooyu man moom waxtaanu si bi affaire bi soog a door noonu bi ñuy dem noonu mi ngi ma noonu bi ma demee ba këram ñu toog noonu di waxtaan affaire yi moom doon na ma wax maam pour maanaam affaire pour ma ñaanal ko affaire man ne ko man nekkuma sëriñu ñaan ñaan kat. waaw ah, la bëggoon nga biñ demee ba si bi ñu waxtaanee ba ma de ba bañ demee ba këram ba toog si si fin bi noonu doon na ma wax loolu ma ne ko man nekkuma sëriñu ñaan kat man ñaanu ma affaire yi. Mm. ñaanu ma nekkuma sëriñu ñaan kat day ñaan affaire waaw foofu foofu foofu noonu waxtaan nañ ci tuuti si affaire yi ñaan ak yooyu man ko man ñëw na ma ko si leen terminé affaire mm-hmm. après si leen duggee si duggaatee si cadre comme di waxtaan yeneen waxtaan. Mm-hmm. waaw feebar bi nga bi wax ni moo la dal fi nit ñi lan lay def ci yow fi nit ñi mais instant yi feebar bi maam comme ni muy def ci man moo di comme li ma wax rek sama biir bi doon metti jàpp fi sama. waaw mais comme faju gi may faju nii isaan yi nii faju gi ma faj faju nii maam lu si bëri suñu borom def na ci mi mi mi ngi tane bu baax mi ngi mi ngi dañ bu baax a baax. est que li nga def wóor na. ah li na. wóor ci comme si. moom noonu gis ko dugg ci moom. non parce que li ma wax xam nga nit ki maam chaque jour nekkul ne maam loolu c'est la première fois loolu daal. Hmm. mais man doo ma gis nit ki c'est la première fois gis la nii rek salaamaaleykum salaam dugg si yow. xam nga mais instant yi comme affaire yi maam mbetteel la. ndax ni mu la bettelee comme waxtaan ñi ngeen gisante premier jour waxtaan affaire yooyu mu kombagale ñëwal sama kër nga ne ko après naa ñëw sama sa sa sa sa sa kër nga dem këram xam nga yow nga nga dugg nii rek xam nga toog si kanam ñu xeeli ndox jool xam nga aussi ndox mi doo ci bàyyi xel. comme mi ngi mel ni nga xamante woon fii benn waaye ñëw nii. comme aussi ngeen waxtaan affaire kon naa ne rek la sa waaw mën naan ko toog tuuti ni rek aussi sama biir bi commencé di métti. quoi loo ci yokkaat léegi ci waaj. mais waaj daal maanaam li ma si yokkaat mooy ko maanaam ku bon la. ku saay saay la ku ku la. bànni la maam képp ku gis benn gaan bu njool la nii mm. benn gaan bu njool la xaw a xees nit mm. waaw benn waaye bu njool ni xees nii mm. mais ku kooku daal ku ko gis maam nitu saytaan la ku ko gis daal nga jëm koo moytu koo gis maam nga wattandiku ko moytu ko ndax maam day maam kooku daal day day yàq nit carrément ku ku ku mu gis daal instant yi bu paree si yow moom yaakaar naa boo faatuwul moom maam yow moom suñ maam yow say mbokk dutuñu amati jariñ si yow ndax moo moo xum la sax maam dafa dafa maa def affaire loo xam ne pour ma faat mais moom dafa dafa ma doon def mu loo xam ne pour ma pour sacrifice ma sax moom la moom aussi moom yoon boobu la jëloon quoi pour def mbokk say mbokk yëg nañ Eh, samay mbokk maanaam samay mbokk moom maam jot jot jotuñu ko jot jot astafurlah jot nañ ko yëpp ndax wax naa ko sama benn mag bu jigéen ko waaw wax naa ko benn mag bu jigéen ak sama yaay. mais tane nga fi ne mais fan yi euh, waaw yi moom tane naa maa ngi sant yàlla baax a baax di ñaan suñu borom gën maa dolli sant ma ma mu gën a jëm kanam isaan mais isaan yi ba léegi maa ngi topp ay di faju nii li ma ñàkk si si li ma ñàkk sama bopp rek su ma la ko woon isaan yi nii yow da ngay da da ngay yëngu ci yàlla sant yàlla xam Eh, eh, moom maam am naa natt waaw lu mel nii daal natt la si man waaye dana ma yee daal dutuma daal di si ndax damaa ne woon ba tënku mais li ma la rek maam nit ki day toll foo xamante si ni maam danga am xel am ànd ak sa sawu yëpp mais benn affaire danaa la daal ba nga xamante si ni instant yi nii nit ñi su ñëwee di la yedd sax danga naan leen yéen li tax ngeen may yedd ndax man maa leen ëpp xel yu bëri yi dama ko doon bàyyi xel di ko calculer yaakaar naa ne adduna naa dox bu dund ba faat dugg ci suuf te aussi yéen yéen ñi du ma daal quoi. Ah, yàlla moo ni man. Mm-hmm. am naa juróom fukki tur ak juróom-ñeent. 99. Mm-hmm. may woo woo leen ma ci lu nga ma ci ñaan ma wuyu leen. Mm-hmm. dégg naa doole wa lillahi asmaul husna fad'uhu biha. yàlla am na 99 non ñaan leen ko ci turóom yooyu. waaw yooyu nag baalekat baa nga ca mayekatu xaalis baa nga ca. maykatu xéewal jaa nga ca ci turam yooyu de. yàlla mm-hmm. mm-hmm. baax gi jaa nga ca ponkal maa nga ca ki gën a ponkal ñëpp a nga ca notaakat notaatekat baa nga ca ki dàq notee nga ca waaw rayaatekat baa nga ca dundalaatekat baa nga ca joxem koom maa nga ca musalaatekat baa nga ca bu la ci neex rek. Mm. situation boo ci toll rek bàyyi. fëgg fëgg ko buntu booba. Mm. waaw waaw. billaahi dëkk waaw. Mm. boo amee bu fétteerlu sa kanam di la not di la sonal lekk may sa yaa jabaaru hmm. yàlla ko ëpp doole fopp gën ko hmm. fétteerlu hmm. waaw wallaahi dëgg la ah waaye alaaji ana xaylu qayyum yi ah ana inna batsa rabbika la shadid wallaahi subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar wala hawla bu dee bu dee war bu dee war sëgg mën a bëgg ana istixfaar yi. boo ko doy boo ko doyloo de bu dee leer nga bëgg ana yaa wadduud yi. yaa wadduud yi ana salaatu ala nabi. ana xamdala yi. ah waay c'est que alaaji. xaw xale yi alaaji il faut nu wax ak il faut nu wax ak réew mi. dañuy jaaxal gis nga réew mi. ah. danoo war a xam xàmmee ràññee. dañuy jaaxal. xam. xàmmee ràññee. du yow koo gis rek mu yor kurus mbaa sëqal sikki ma mbaa sol ñetti mor nga ne sëriñ la ah di ko rang sëriñ ah, Sénégal léegi loo bo sa bopp bi métti sax bu méttee ñaari ñett ñu ne la mbaa seede nga sëriñ diw wala kaay ma boole la ak diw boo leen toppee dañu ah, baax na yow dootoo wóolu sa existence ci kaw suuf. yow bëri na ñoo xamante ni si tey amatuñu dara naada. naada dañoo dem ci nit mu noob leen jox leen lam leen di jox. lañ yoroon xiir leen ci boppam. da dem ba jaay lal bi nga tëdd sa da nga koy jaay di leen ko jox. Mhm. mais dama xam nga dafa am. mooy mooy mooy wàllu caay-caay gi ñuy doxee. Mhm. mais mhm. nit ki. nit ki doome aadama gi. war ngaa mën a góorgóorlu. sell ci sa digganteeg yàlla ba soxla boo am nga gis ko yàlla. bu ko fajee baax na bu ko fajul baax na waaye def nga sa wareef te it nag ñu jiite suñu wayjur yii. Mm. Mm. gis nga loo mënta am ci sa wayjur. Ah. ñaan boo mënta am ci sa wayjur. Mm. munoo ko am ci sëriñ. dafa leer. il faut muy leer. sëriñ bi lay ñaanal sax bu dëggoo dëgg dëgg danaan la. ana sa ndey. nga ne kon mi ngi fi ana sa baay mi ngi fi mun la dellul boo delloo nga teral leen ci nangam ak nangam ak nangam. Mm-hmm. wala mu laaj la ndax sa ndey ak sa baay gërëm ñu la. Mm-hmm. yenn sëriñ si loolu lañ lay wax balaa ñu lay ñaanal wala balaa ñuy dugg ci say wax kon yow sëriñ boobu mi ngi lay xamal ni mbir mi ginnaaw yàlla. Mhm. ak yonent bi salaay salaam. Mhm. way jur la. Mhm. nañu fexe way jur yi yoon de. nañu fexe way jur yi bëgg. dëgg la moo yoon de nañu fexe way jur yi bëgg. dëgg de waaw dëgg de yàlla xam na ko. waaw wala secret bi nekk de. wala secret bi nekk de lay ñaanal. boo pare sel set selal ñaanal sa bopp. di leen jox xéewal. waaw di leen jox xaalis di leen bégal. Mm. léeg-léeg nga gis El Hadj Mansour nit koo xam ni. ah ab Mansour Diop boo xam ni. Mm. moo tane Fofana fuuf ci mm-hmm. koom ab Mansour Diop boo xam ne moo tane Fofana fuuf ci koom mm-hmm. nga gis benn Cheikh Sarr bu ñëw ne Fofana kaa mi yóbbulu ci benn sëriñ boo xam ne toor fa kal toor fa kal te yow Fofana bi nga yóbbu ci sëriñ Fofana la tane Fofana sëriñ ba sax Fofana la tane ba nga bëgg mu ñaanal waaw du ñaanal boppam yem fa nga yem moo man Cheikh Sarr ma ñëw ci Mansour Diop ni ko Mansour man daal gis naa liggéey bi ngay liggéey daal soxla nga ci yokkute waaw soxla nga ci ibbeeku am naa benn sëriñ. teew maa la ëppale bu ñu wax mhm. kañ dem ma boole la ak moom te man Mansour bu may ñëw ci yow bu ma dem dama yaa ma jox paas bu may delloo. waaw boo ko fee yaa koy yóbbu. waaye ma dem ci Mame Mbaye mii mu ñaanal. Mame Paas. <laughs> yow yow yow yaa ngi yóbbu nit ki sëriñ te yow nit ki nga yóbbu sëriñ moo la tane. moo la moo lay paasal yóbbu. sëriñ ba de bu ko mënoon ñaanal ko boppam. tane la ci tur tane la ci wërsëg mm. tane ñi ñoo war a yeewu. sëriñ ba ma ko defoon suñu côté de côté Petite Côte sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ. dawle ma dem ma ko. jiital leen way jur yi. waaw. won ko ab yaa mu foog ni man xëy na damaa kii yow nit ma wax ma ah loolu dama mu dëgg moom. Hmm? waaw booy. loolu la dégg la dégg booy. boo xam ne yi changé <laughs> man maa la man du ma sa man yii ngi wax sequma koog yow wax dëgg yàlla sequma koog yow. Hmm. dootuma dégg ñu ko fu <laughs> ñukk fu mu yem neex. fu mu yem neex. <laughs> ki ngay ñaanlu Cheikh Saa mi ngi dem ci moom na nga ko naan ñaanal ma. Hmm. mooy yow nekkal sama digganteeg yàlla. Hmm. interprète di ñaan yàlla. bu la yàlla nangulee nga ne ko yàlla li nga may nangul maa ngi lay tinu ci maasu mii kat. maa ngi ñaan. defalal seex saa xéewal gi mhm. maa ngi lay ñaan fajal ko aaju ji mm. yow kon da ngay ñaan da ngay ki mm. mais kuy ñaan nag ki ngay ñaan mun naa bañ mm-hmm. comme mun naa nangu mm-hmm. boo ca fayee koo de yaa ngay def ak mais naxaatekat yii ñii ah. booy mm, naxaatekat te nit ñaa ngi gëm sëriñ te ku ci lambax sëriñ ñu dof loola mm-hmm. nag dañu naan la xoolal yàlla xam na ni li nekk ci yow wërsëg bi ne ci yow egseegul surtout mhm. surtout côté wërsëg nag ni ko la ilaha ay lu ñëw sa loxo day dem waayoo hmm. kan moo gis luy nekk ci sa loxo bàyyi Cheikh te du dem waaye dëgg la ak bu demul dara du ñëwaat di waaw ban góor moo bëri ah? beneen bi ci tegee ban góor moo bëri la soppee góor hmm. moo jaaxal wala da ngaa bëri ay soppe ah? bëriwoo soppe hmm. yow da ngay da ngay góor ñu ne la yow say soppe <laughs> ay jigéen say soppe yow da ngay ne góor ñu ne la say soppe jigéen a ci ëpp mu ngi nekk loolu biti la. a xel nangu waaw mais loolu kay loolu kay xel nangu na ko. fii <laughs> fii loo fi def sa bopp ëpp ëpp doo ko gis wax dëgg yàlla. <laughs> dina la loo yaakaar mu tas. loo def sa xel dëgg. wala mettre ko mettre ko njool ki wala ko ñuul ki. waa baax na ah. wala nit ki di la seetaan. man man am na benn seetaan. ñëw suñu kër nii rek dugg rek ñu mën ma ne ba ma ci moom ni ma dina seetaan la. ma ne ko gi ceet gi ñaata la mu ne ma ceet gi ñeen fukk la. ñeent fukk waaw. ma ma def samay xaj bu xaj bu xaj bu xaj bu xaj jox ko. waaw góor gi toog. Mhm. ni ma sa bopp bi na de. <laughs> ma sa bopp bi ma ne ko tëfli naa ko ci desaan. <laughs> leeral ma bopp. <laughs> nga ne ko tontu li laay xaar. ma ne ko tëfli naa ko ci desaan yi. mu ni sa bopp bi na. waaw mu ne ma yii saa sa bopp bi na de. donc daaw. wàllu nga tëj. xam ma ne ko tëfli naa ko ci deux cent <laughs> li jëm loolu maa li jëm ci loolu moom tëj naa boppam. nga ne ko Kaaba ngi balaa booy tëj sa bopp ma tëj sa bopp <laughs> ah <laughs> yow kay li dafa tam dafa tëju li ko li ko tëj kay wax ma ko. léegi kaa bi mooy mu li jënti. waaw léegi nag xam yow bu fekkee da ngaa yow da bëri problème. yow sax mhm. xol bi am nay problème sa xel mi am nay problème léegi boo ñëwee toog jàkkaarloo ki lay seetal bu neel sa bopp bi tëjoo ne rek yow fi mu toll da ngay ratatati wax. nga ubbeeku <laughs> naan ko waaw sama goro ba nii sama njëkk ba nii sama yow kay yow la nga doon seetlu moom. fo jaroon dem fo waaw. Eh, waaw. <laughs> for yow fi mu toll nii yow sa problème yëpp. fi mu toll nii wax ko ko kay fi mu toll nii ceet gi dee door na. Euh, c'est <laughs> vrai wax dëgg la waaw dëgg la dem ci médecin mu ne la <laughs> non médecin bi sax médecin bi sax jaayul ak baatin man nag man nag bàyyi ah. xam nga ban nag ban nag moo ci yegg fu ma benn yeggul waaw <laughs> yónnee ma crédit mille francs mu fanaan noonu la non boobu moom boobu moom moo tax te nga yónnee ko mini mu woo ay jéega. mooy yow bu wax ji tere mu daggal la saaga boo ko identifié da day daggal la saaga de yónnee ma non non non ab sëriñ boo xam lay doon ku nekk. mu ne la yónnee ma ma. yónnee ma mille francs. Hmm. crédit ma fanaanoo la. waaw ah, mille francs yi lay lal tëdd ci. léegi <laughs> léegi mille francs yi nga fay da nga koy dugal comme nekkoo fa da koy dugalal crédit mu woo ay jéegam moom. fanaan sabula sama benn sama na xam nga maam nee na cheikh nag loolu yow de loolu gëm ko mooy gëm ko mooy mm-hmm. ka mu yónnee mm-hmm. jaar bi ñu goror ko ñëw liibar genn wàll kilo yaa ngi dégg kilo ñu goroon ko ca kilo liibar mu indi ndawal la teg tàq ñu ndawal liy sël-sëli def bu cay def mu lekk ca ba biir ba ne degg xol xool boisson bu ko jegee mu ubbi dajj naan ca mm. ba ko guddi gi kooku dana màng guddi gi day biddanti non dama ne ndax dina màng guddi gi mànge ah génn gént kay nag alaaji ma wax la benn affaire gént waaw gaa gaa prime gént mi. gaa ngi ci juum. juum yi mitti mitti mitti. Hmm. yow xam tax ma ne xam nga tax ma ne eh. prime mi gaa ngi ciy juum juum yi mitti. Hmm. man su ma tëddee fan su ma fanaanoog mar. maanaam ma tëdd guddi gi nii rek xaw a mar tayal a jóg ndax coono. Hmm. ma tëdd nelaw nelaw. alaaji fors ma ma ma gént nekk ci ay ndox mbaa dina ndox. faw nga gént ni ci dex di naan di di di fay ba mu yàgg ngay naan ci ndox ma. <laughs> boo yeewoo ne sëñ bi damaa gént ba daal gént naa daal nekk ci dex ba mu yàgg may naan ca ndox ma. <laughs> sëñ bi danaan la yoo xewal la géntu ndox xewal la. Mm. naan goog nga cay naan fekk yow da ngaa fanaanook mar. fekk mara la jàpp. waaw <laughs> ndox rek ngay gis. nga ba ngay tëdd lekk jàpp ci cere ji lekk ci cere ba sa biir bi diis. waaw gis nga tëdd ba ngay tëdd. maanaam boor boo féete. Mm. cere ja day doonub dànk dànk googu muy dànk dalay lay solol ci sax nelaw ci ngi gént yi ak fitna goo xam man nga ci gént yi bërimu ci ay ay <coughs> ay di daanu ñu lay daq nga yow wax ko ab Mansour Diop ni ko sëñ bi dafa <laughs> gént damay dàq ay kër yoo xam fekke coono cere ji nga lekk la <laughs> <laughs> bu ne am na fi tëdd gént xiif kay eh, tëddaale xiif guddi da ngay lekk muy bëgg a dee dañ leen xool gént yi. dañ xool gént yi mais sëriñ si. ah sëriñ si. yàlla yàlla sagalu suturaal def ndànk de. am na ci sëriñ su yàlla may. Hmm. soo xam boo fa demee nga xam ni wax dëgg yàlla may na leen. Hmm. waaye da ci am ak caay caay gu ci lalu gu mitti. Hmm. may gi may gi da lay yàlla. yàlla ji la yaakaar. may gi may gi yàlla lay ñaan. <laughs> ñaan rek. eh Baye eh? yàlla kii ni mu mayee du benn ku ne xam na ko. moo tax ngay dem ni nit ñaanal ma. Mhm. xëy ne moom ci jaamu yàlla yegg na fu mu mën a ja ñaanal yàlla du ko gàntu. yow xëy na mhm. am nga am nga am nga barrage bu ne ci diggante bi loolu kay lu nekk la. Mm. loolu lu nekk la waaye nu la yàlla mayee ci sellal rek. Mm. nit nekk na ci kàccoor gu ni toll mbaa gu ko ëpp yàlla may ko lu ëpp li mu la may. dëgg la. namrut ay tan simple piccum tan la jàpp di koy yafal yafal koo yafala yafala yafala yafal ba mujj nekk armeem hmm? bu amee guerre wala combat ci tani lay yëg dem bombarde ji dëkk ba muy ba muy songi te namrut moomu dem na ba ni day xeex ak yàlla yafal ay tanam chaque jour mu rey fas jox tani xeeb na fas yi léegi fas yi lay alimenté tani ba benn jour mu dem attaque ji yàlla dugg asamaan ak tan yi di naaw di naaw di naaw ba egg ci niir Hmm. mu jël ay oh. fittam tëpp tëpp toute une journée xam nga fitt hmm. xam nga li ñuy wax xam ni ko France di wax aljazibiya mooy suuf si fi mu nekk nii am na benn niveau boo xam boo fa eggee ci kaw hmm. boo sànni boo bàyyee sa téléphone yi du wadd ah, ah, mooy mooy planète Mars bi yooyu waaw jazibiya xaw ma nu ko tubaab di wax fàtte naa ko. mooy planète boobu du am loolu benn distance boo xam benn distance boo suuf si rek am dootoo am kii boobu. dootoo mën ah. am dootoo am lu koy benn distance boo xam bu ci kaw. Mhm, asamaan mhm. noonu lay demee. Ah, ah. mhm. Namru dafa dem ba foofu nag. jël ay fitam naan ndell ndell fit bu demee dootul wàcc parce que amatul jaasi bi bu ko dóor dóor ni ci kaw mu yenn ji ba ngoon jot avant mi ba ñeeku di ñëw rek yàlla ji xiin commencé taw de mu ngi cuukee jàmm mm-hmm. ñëw naa leen may yàlla ki nekkoon ci kaw naan mooy yàlla éliminé naa ko lay euh, le mor lan laan demee xoolal yàlla ji commencé taw dëtt cam <laughs> fi naaj bi yaa nga nga génn dëtt de naa faatu nga mm-hmm. jéeg-jéeg ay daggetu yax ak yàpp yu nëb di wadd mu ni. <laughs> yàlla bari pexe. ku waxati ma rey la. pexe bi yàlla <laughs> fi maa fi buur ana rabbukumul aala. Mm. fii maa fi nekk mun maay seen buur. Mm. yàlla xam na ko ci pexe yàlla. kenn du moom. waaw mbindeefu yàlla yi nag ne xëccu. volonté wu ni yàlla maa lay maa lay maa ji. yoo yoo yoo mi gën a tuuti yàlla yoo. Mm. moom moo lijjanti bi moom na ñëw ni ci noppi daaj. dal yuux ñu sotti ndox yëngal nangam nangam yooyu yooyu la jékki-jékki xam nga yow day yu yu ci bopp bi ci bopp bi. mais daal li mu indi ci solution quoi. boo tëgg yi dàq tëgg foofu. li liggéeyal leen ma bopp bopp nit bu rafet. ko xam man may dàq ci àdduna kenn ñu ak man. ñu liggéeyal bopp ba mu am ci satisfaction ba kontaan. mu ni def nga leen bopp xaj. bopp fas bopp nag. gars yi defal bopp xaj ñu rey xaj bi monteel ko bopp xaj xaj bi daw dund ak bopp ba. waaw mu ni rey leen fas ñu rey fas monte bopp fas fas yu dem ak bopp ba mu ni kon suma mën naa monter sama bopp léegi je vais essayer woo gars yi def cérémonie bu hmm? mag dëkk ba yëpp yëpp ñëw ñu ni bopp ba tapit la ko bopp bee namrud nangu fëgg buur buur monsieur le président président oui protocole bi monsieur le président mu ni jedd jedd ni neem eh président de la république monsieur mu ni neem xoolal xoolal njàngale moom. histoire Namrud. Hmm. te Namrud Namrud kenn la woon. Hmm. foo yoon doole kàttan ak ci may. waaw xoolal njàng mu rëy moom rek. ah xoolal njàng li mu rëy xaj baa ngay dund ak bopp weñam. waaw fas baa ngay dund ak bopp weñam. waaye moom moom bopp ëram dañuy jàdd. waaw xoolal waaw. c'est Cheikh Touré rakku Birahim Touré mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ko bu baax Cheikh Touré seen jeune frère ñu ngi lay ziar. ak Birahim Touré ñu ngi koy nuyu bu baax jeune frère ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax Touré ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Boubacar Kambel Dieng men. alaaj njàngale mi nga solo. Mm-hmm. alaaj njàngale mi nga jàngale nii. Uh-huh. wóo solo torop. wane ni nit loo mën a nekk nangul kile supérieur. yàllaay maa la ko wax. Mm. yàlla daa muy pexe de. su ma kuy def ba. maanaam maanaam. ah maa mbay nag bàyyi sa yooyu. Cheikh Cheikh introduire ko. ayca frère Bacal. <laughs> ne vous représentez pas conseil municipal. waaw frère Bacal ma door ko ko.